jërë ngeen jëf coowal déclaration patrimoine bu neeti na ci réew mi l'observateur nañu démb ca ndajam conseil des ministres am na ñaari procès de loi yu ñu fa waxtaane ba war tëgg yóbbu ci assemblée nationale ngir ñu woote ko ñi war def déclaration de patrimoine liste ba yokku na képp koo xam ne ab haut fonctionnaire nga ci administration territoriale bi léegi da ngay sa patrimoine président bu conseil constitutionnel ak président bu cour suprême patrimoine am ba noppi taxaw lànk kandaarane du ko def loi bi nee nañu dañuy rëq sa ndigg l'observateur dem ci ba nañu fàttali li fi na fi ngoom Keita mi jiitewoon waxoon ci grand jury bu RFM mu di nee na dafa am benn bés benn ministre de la république woo ko téléphone guddi ay boori minuit et ne ko bu sañoon du déclarer patrimoine am l'observateur la Macky bëggatul ñu koy dégg ci réew mi njiitu réew mi président national Macky Sall ci xët mu njëkk soleil national ba ñuy conseil des ministres moom Macky Sall sant ne dégg nañu ko ci tournée économique doléance ñu mën a saafara mu dégg ko ca Kédougou dégg ko ca Kaolack ak ca Fatick doléance yooyu na ci gouvernement bi taxaw réglel ko seeni borom nu mu gën gaawe soleil national mi ngi ñuy wax ne dëkk yi di Jurbel Ndar Matam Louga Kaolack ak Sigicoor nañu waaj ndax ci ñoom la Macky Sall jëm si ci lu yàggatul dara it soleil national nee nañu danañu amal ab conseil présidentiel jagleel ko jeunesse su réew mi conseil présidentiel boobee ñu war a jagleel yéene tribune nee nañu wuute wut ak patas bu tàng jër bu autorité réew mi yore ci seeni loxo di ko àllawti ko moo waral ñu bëgg koo teg waxtaane ko waxtaan yu mu def keroog ak waa Jeune Afrique moom njiit réew mi journal enquête am na lu mu ñu ci xëy jukkil ci xëtamu njëkk bokk na ci li mu ne moom Macky Sall politique ak ay war ñoo ànd bokk na ci li mu ne bu Sénégal doonoon réewum dictature kon duñu xëy di ma saaga guddeeg bëccëg jàmm njëkk ci mujj ci bokk na i mbiram ci journal Les Échos ko ca kasob Cap Manuel ba ak Habib nee nañu Ousmane Sonko ma ngay dégg jàmm Sonko en grande forme bés bi le jour nañu Sonko jóge ca bang-bang ga mu nekke woon léegi li politique laaj di réal politique moom lay doxal pare na ca grève de faim ya mu doon def teg na plan B ma ngay recevoir ay wisitam ak di nas ay stratégiem journal bi nañu waaye noonu rek la mën a doxale ndax état bi mu ko séqal mayu ko dara le mandat bi ne na Ousmane Sonko dellu si na am xelam bay gérer ak nekkam ca keneen ku nekk ca kaso ba te nekk ci yéene kay ñu xëyandool mooy oustaz Omar li ñu ne collectif taalibe seex yi ko porté woon plainte retirer seen plainte ba l'observateur nee nañu loolee amul donte waa CUDIS doon nañ ci jéem a tànki jàmm waaye taxul taalibe cheikh yi retirer seen plainte au contraire dafa am yeneen fukki plainte yu ko fa fekk ñu fekkaat ci l'observateur mbir meneen muy yéeme ba yegg ci lool ubbil yéenekaay bi Abdouli benn waay la bu fekk baax ca fastu couleur ga ca Kaolack da daan wër di wax ne ab policier la te du ci lenn moom wàjj di Abdouli lu mat juróomi jigéen l'observateur nee nañu doxaan na leen dig leen mariage tëdde leen jël seen alal dem yoonam sticker rapido Touba Darou Salam Caro Prestige DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant Soumari.com Kenkeri le Grand Jaxaay ak la maison du matériel médical 3 di kër gi yor wàllu séddale matériel médicaux ànd see glucomètre prodigie ñoo leen doon abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci réew